أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني الحمد الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا خطايا من بني الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني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 dañuy faral di saytu suñu bërëbu liggéeyukaay ci lépp lu war a mën a indi lakk ngir artu bépp jeya waaye suñuy mbëbët yamul foofu lobbu maam jaara yamul ci gaz ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu ooyo ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee si butaan bi xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na lobbu maam jaara soo kenn mënatu ko wute ëllëg si biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen gunge fépp te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori Ci bu jën di togg aleykum mbokki Sénégal aleykum mbokki Ndakaaru jël Jóob ak li ko wër jox leen ma seen i nopp ma ubbi seen i bopp seen jaaxle jeex na tàkk te ngeen a bëggoon ay ginaar yu xéewale ginaar yu duuf ginaar yu baax ginaar yu set te sell te wóor adresse bi benn rek la Mbambilor tali bu xonq laajte leen poulailler Cheikh Ka wala ngeen woote ci 77 979 wala 76 780 32 07 suñu ndaw dana noonu nu leen jël si andi leen ci poulailler bi faj seen aajo poulet de pays pondeuse poulet de serre lépp lu ngeen ittewoo rek am nañu ko am nañ ay sikket ay bëy ay xar ay kuy yu baax lool ana borom kër yi jaaxle woon fu ñu jëlee tabaski mu yomb te baax ñëw leen seet si ñu te mbaam bi lor tali bu xongo laajte leen poulailler Cheikh Ka mbokk yi li gën a neex nag mooy am nañ oto bopp lépp lu ngeen jënd ci ñun la ñu yóbbul leen ko ba fa ngeen jëm mbokk yi am nañ ay nen dik ci lool ci njëg yu xéewale lool merveille ñaay gànja fajar gi ci digg àll bi daal li ko tax a jug mooy faj seen aajo Seex Ka moo mën ci Sénégal ci njaayum ginaar ak nen xar ak bëy ku ko weddi nag demal seeti ko ca Mbambilor tali bu xonq wala nga woote ci 77 979 77 53 Seex Ka Le Dara Ali Imran, sous la directive de Oustaz Alioune Sall, organise sa 17e édition de Dara Vacances, suivie de la deuxième édition de la colonie de vacances qui se tiendra cette année à Toubab Dialaw pour les enfants de 6 à 12 ans, garçons et filles à partir du 15 juillet au 11 septembre 2022. Avec un encadrement de qualité composé de professionnels aguerris, la colonie se fixe comme objectif d'améliorer les compétences sociales, la confiance en soi, l'esprit communautaire, la sensibilisation culturelle, mais aussi et surtout améliorer le niveau des enfants pour l'éducation islamique. Nous croyons que ces compétences sont essentielles pour nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens du monde impliqués, chacun équipé d'outils et de valeurs pour apporter une contribution profonde et durable à la société. Pour plus d'infos, contactez le 117 438 49 94 117 586 6 77 ou le 117 531 09 9 28. الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوته yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri <clears throat> wa li amri min lisaani fahu xawli bokk ñu ci biir te dañuy déglu ci biir mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Imran TV ci seen al dellu si na di ko defal si ànd ak euh, équipe technique euh, lay euh, le grand technicien wala <laughs> caméraman ak suñu mbokk Pape Doudou yan yàlla sàmm leen jàppale leen ndax su nu amee jataay bii man nga ne dañu julli fajar rek ñëw <clears throat> nekk ci fil yeeg caméra yeeg ñoom seen yooyu kon ñu ngi leen di jaajëfal ci wàllu googu Al Oustaz jotaay la boo xam ne onze heures lay tàmbali neen ko gisee su fekkee amul benn benn rëcc rëcc te tey macha allah gis ngeen ko bi nu commencé def suñu fii ba léegi fu waxtu jot rek ci kàttanu borom bi tabaaraka taala ngeen daal ñu am kon onze jot na day dem ba midi demi incha allah. al oustaz jotaay la boo xam ne noog yéen ñoo koy séq <coughs> ngeen indi seeni laaj ak seeni contribution ak seeni soññaate waaye ci tàmbali bi ñu gërëm jaajëfal baax alxaaji Malick Sall di woote fële ca Latmingué ñu ngi koy jaajëfal lool di bëgg ci ni muy ànd ak ñun jotaay bi <coughs> kii mi ngi tudd Moussa Ba ma nga ca Angleterre Moussa Ba salaamun euh, Al Imran TV mu ngi lay wax salaamun ki Cerno bokkar la tudd nekk ca Bergamo ci itali ñii ñooy ñu àndoon ak ñun jataay bi ñu weesu Serigne am ca Côte d'Ivoire ca la bokk Cerno Bokar mi ma tudd léegi ca Bergamo ca la bokk Baye Ndiasse ma nga fële ci almaañ mook Allemagne yeeg sunu mbokki senegal ya nekk ca dëkk ba réew ma bokk te ànd ak ñun jataay bi si la daf nuy ah, day faral dina nu topp mu ngi ci kolabaan gii nga xam ne moo nekk ci biir dakaar kon bokk ci ñuy woote ci dakaar alxaaji Dramé ci Espagne la doon woote xam naa mbokk la ci Oustaz Ibrahima Dramé bu bu bu TV parce que ay Dramé Dramé lañu te Dramé Dramé ñoom ñëpp ay sëriñ lañu kii boo ko Boubacar Diallo la tudd ci France la nu wootee ñu ngi koy jaajëfal baax a baax kii Modou Modou Dieng la woote ci la nekk ca yëmbal ND ND euh, convection <laughs> waaw dañuy faral di ñawal di jox te nag xam naa sama euh, habillé par euh, nangam wala par diw danaa ci ñëw ndax euh, grand bi dafa am historique danaa ko wax Pape Doudou incha allah al Ousseynou Diallo ci waaye moom tam ñu ngi koy jaajëfal saa bu ñu ubbee téléphone bi mu ànd ceeg ñun kii Awa Sow la tudd ma ngi ca France moom tam di ànd ak ñun jotaay bi Ibrahima fay ci Allemagne lay woote salaamaaleykum wa rahmatullah. allah madame Diatta moom tam ci France la nekk. Mouhamadul Amin salaamaaleykum wa rahmatullah di woote fële ca wa aleyna wa salaam wa rahmatullah yaa oustaz Boubacar Diallo France ren Boubacar Diallo France ren Boubacar na def waaw sant yàlla bu baax alhamdulilah yaa ngi am jàmm waaw ngi sant yàlla bu baax na ngeen dafa coono yàlla na yàgg alhamdulilah amin amin amin amin kon nag wa saabixoona saabixoona ah alhamdulilah kon de dégg naa moom dinaa <laughs> wala nga ma ci ñooñu rek moom tey moom macha allah tey kenn jiitu la yaa fi jiitu ah kon baax na noonu baax na ah maa ngi bëgg ci jotaay bi rek saa su nekk rek. ah ndeysaan yow waaw di ci nga bokk. waaw di bëgg ci sikkin beeg waaw ak sànq beeg lépp rek. <laughs> merci. waaw ah, waaw waaw. merci merci. waaw xam naa nag tey dama bëggoon nga rek nga ñëwal ñu parce que fan yii daal xam naa ni li may dégg ci dëkk bi réew mi na ngaa kéemaane na daal. waaw. ay wax yoo xamante ñu ngi koy wax maanaam ci diine ji yoo xam ni maanaam daal teguwul fenn daal. waaw. bu bëggoon na nga ñëwoon ñi ci benn aaya bu nekk ci suuratu Qaaf. waaw. Eh, suñ borom ku muy wax naan maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. wallaay ndeysaan. defe naa aaya ñaar fukk fukk ak juróom-ñett la defe naa. ndeysaan. waaw bëggoon naa daal nga ñëwal ñu foofu. d'accord bu ko defee rek nga mun ñoo gën a soññ rek ci <coughs> daal. incha allah. waaw. jërëjëf. waaw ñaan borom rek mu gën a yombal mbir yi rek. waaw gën a avancé Ali Imran rek. amiin ñu bokk amiin ñu bokk. na xam naa ba beneen jamono rek incha allah. waaw ba waaye bul jàppee ànd la ak ñun jotaay bi ba midi demi. waaw waa TikTok waa ah? TikTok it ñu ngi yëglu. jërëjëf waa TikTok it ñu ngi yëglu ni ñu ngi ànd ak jotaay bi tabarakallahu yéen itam ci ngeen bokk bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim Boubacar Diallo Boubacar ci France surtout xaaf la ca yàlla wax suñ ko déggee te mokk suñu noppi mooy ëpp suñu wax rawatina mam Cheikh maam mam Sëriñ Tuubaa daa wax ca axiru zaman haza zamanu ñu naa mu ne sama zamanu sukkuuti wa zamanu luzumi lil buyuuti mu ne jamonoy tey du jam du jamonoy wax du jamonoy génn jamonoy noppi la ak jamonoy toog sa kër aaji daf ne nit kum mën a doon maa yalfisu min xawlin illa ladayhi raqib atid ku yëkkate sa kàddu wax baat ba nga wax am na malaaka mu koy bind benn raqib bind ko wala atid bind ko raqib mooy kii bind sa jëf yu baax dama ko misaal mën naa am muy keneen ka atid mooy kii bind sa yu baaxul li tax ñu tuddee kii raqib mooy daf lay fuglu li tax ñu tuddee kii atid mooy dafa dëgër bopp ñaar ñu ñoo la séq penc mi léegi lu maanaam lu neex waaye mën na ko wax te kum neex mën na laa song penc moo xam ne ñeme ngaa wax ak kilifa kilifa moo xam gu àdduna moo xam gu diine nga sañ yëg ñemee yëkkati kaddu teg ci deram maa yalfisu min qawlin dafa mokkut waaye maa yalfisu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid bu mokkee noppi gi mooy ëpp wax ci ndax ku daaneel sa kàddu rek raqiib dana xam moo ko war a bindam déet atiid dana xam moo ko war a bindam déet ndax kiraaman kaatibiina yaalamuuna ma tafaluun boo ne mbaa yéen ngi am jàmm malaaka mi dana xam ñoom ñaar ku ko ci bind boo ne diw yàlla na nga dee ñaari malaaka danañ xam ku ko ci bind penc nag daf daan am loo xam ne day garder nit ñi garder leen seeni der ku wax nit loo war loo ko war ta wax kooka daat lay eh, yëgle ñu yëg yëgle ko def ci yow sanction wala ay duma yu tax loolu de su ko wax waaye léegi yooyu amatut daanaka kenn moo ko fi am muy monsieur le président de la république offense au président boobu moom mi ngi fi waaye offense au xalifa amu fi offense au imam offense au oustas yooyu yëpp amu fi macha allah waaye offense au président de la république am na fi yàlla na ko yàlla yokk wér jërëjëf Boubacar Diallo ci France ci ren ci salaaj bu am solo boobu jombul jamono dana ñëw. salaamaaleykum mu gën a yaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaa Oustaz ñu ngi ñoo ngi la koy delloo. di tey tey balaa ñu balaa ñu wax <laughs> danaa ñëw ci danaa ñëw bi. ah historique bi kay dañ koy xaar. du ñu dem il faut ma il faut indi leen historique gu garaam boobu bi. <laughs> macha allah wax dëgg yàlla xaw ma xaw ma par kan rek waaye ñu ngi koy ziar. par Serigne Habib Sy. macha allah bu Serigne Mansour Sy. oh alxalifatul marhum li atijaniya ah. waaw danaa ci ñëw nag moom. <laughs> fooy fooy wootee. ñu ngi wootee Vigo Mamadou Lamine. Mamadou mu ngi wëdd bi di ziar bu baax yow Oustaz. macha allah moom sa bureau nga Dakar. nga ne fooy wootee. maa ngi wootee Vigo Espagne. ah d'accord Vigo. Vigo Espagne waaw Mamadou Lamine. waaw ah, sama sama sama hôtel ba. <laughs> waaw waaw Mexico. lay <laughs> ndeysaan. waaw hôtel bi mu ngi fi de ña su ma xëyee rek jot ñaari ñaari ojoom. ak benn texte nuyoom yàlla na ko yàlla gën a sàmm. allahumma amiin allahumma amiin te sàmm ñu ñëpp yéen ñu baax ngeen te am couleur yàlla xam na ko. wallaay kenn du yow yaa ustaas. kenn du yow. wallaay wallaay kenn du yow ñu ngi lay ñaanal ndax bu ñu bu ñu lu bari lu bari loo xam ne mu ngi nekk si ñun wallaay yaa ko def si ñun. wallaay doonte doonte distance bi sori na waaye nag yëg-yëg bi moom mu ngi fi du fi jóg. waaw dëgg la dëgg la al bu'du distance bi di ci wàññi dara incha allah. wallaahi wallaahi. jërëjëf ñu ngi ñu ngi ziar mbokk génn léegi. waaw mbokk moomu doon wootee France moom xam naa dama koy mujjee mere rek ndax nu mu ma njëkk a dugal naa <laughs> baal ko baal ko. kon baal naa ko kon baal naa ko. <laughs> alhamdulilah. jërëjëf yow ñu ngi ñu émission bi. tawfiq incha allah. di sama soppe bi Serigne Cheikh Dieng. mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. di di nuyu sëñ Mor borom worof yi neexee yàlla na ko yàlla sax. waaye sëñ Mor kay moom danaa ko ubbil cabinet laa koy ubbil. ah waaw sëñ Mor kay. sëñ Mor kay cabinet lay ubbi incha allah ndax li waaw ah, macha allah yàlla na ko yàlla yokku wér. koy kenn. Ah, sëñ Cheikh daal macha allah. daa naan la sëñ Cheikh daa naan sëriñ boobu chaque bu ma commentaire naka yaay suma sëriñ. <laughs> wax na mat na la sëriñ de. macha allah macha allah di nuyu oustaz Kanji bu baax moom tamit ci waxtaan bi am solo yi waaw dana dana ñoom ñëpp a ngi lay allah. incha allah jërëjëf di ñu ngi toog déglu jotaay bi ànd ak moom bu baax. di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi ko nuyu. dëkk bi yépp boo ko xam ngeen ne ñoo ngi ci fan yiñ doon fàttali ko téeméeri at yi nga xam ne moom la moom Seex al am ci biir suuf ba mu demee ila rafiqil ala ba tey Sénégal yëpp àdduna si yëpp monde bi yëpp daje bi jàng góor googu am fi jóge fi depuis téeméeri at kenn fàttewu ko yi bu fi jóge woon balaa bis bee delsi ñépp fàtte ko wa zikruka baada al mawti na umrun thani jógi fi ba napp ñu lay tudd mooy deuxième dund mbokk yi 88 la 628 11 00 77 499 12 12 ci ñu bëgg a bokk ci jataay bi ñuy participer nag ca euh, action yi ñoom seen yooyu

yaa quelque chose suñu diggante ak moom téeméeri at yooyu nga xam ne moom la réew mi di fàttali ko bi nu maam Cheikh Al Hadj Malick ginnaaw ak tey te ci kaw suuf amu fi téeméeri at defe naa juróom-ñett fukk yëmatut te mel ni ginnaaw wane ginnaaw gi su del siwaatoon bañ wan ko wan aktub ma qaddamoo wa athaarahu ci waaw waaw wan ko ñim seex ñim mu xaddamaloon li topp ci seen ginnaaw wan ko doom yim fi bay li topp ci seen ginnaaw wan ko sëdi ba baa ngay àgg ci alxalifa sëriñ Babacar Sy Mansour waaw wal mawaqif al waaw taxawaay yu am solo yeeg position yi moo tax góor googu jàng ko jàng ko war na mag ñi jàng ko war na noonu waaleykum salaam waaw bisimilah ah foo may wooye man maa ngi fii ci Touba Europe de di leen doon ci téeméeri at yooyu noonu ñuy fàttaliku. ndeysaan ci Touba Europe. waaw di ñaan yàlla suñu borom yu yokk leeram taat na ci barkeem te jikko baax yi nga xamante ne ndeysaan ndeysaan amin amin ñu man cee yàlla suñu borom dimbale ñu man cee roy bu baax a baax a baax. ndeysaan jërëjëf. ñaan ñaanal. dañ mën a xamu yàgg si lool ak boole. Ah, amiin xayal nga xamante ni. amiin xayal ko xayal yëpp. amiin fu mu mën a nekk. ay yaanaan di ñaanal ñëpp jàmm. rawatina julli bi ak fu mu mën a nekk. yow nag dama am ak ci yow wax dëgg yàlla ndax ak yaatu ak bëgg lu baax. ndeysaan. maanaam daal man wax dëgg yàlla yàlla bi ma tiim xam naa ne war na sëñ Tuubaa defal bi ma ci am ci yàlla sëñ borom rek laa koy. ndeysaan ndeysaan xayartu. alhamdulilah. yaa baax waay yàlla borom naa ko ci de waaye nag maanaam damaa gis ne maanaam jamono jii. dafa am benn aay bu nekkoon ci xët am ne. mu jiwu yaakaar naa ci la nekk yàlla suñu bi ci wax ne maanaam lu fi yéen li ngeen di wax maanaam lu ngeen di dégg maanaam ngeen wax lu ngeen xamante naru leen. loolu ma gis ne maanaam jamono ji dafa bëri ci suñu réew mi lool lool lool ba man fii mu nekkee man man sama bopp sax dama toog bés du ma am jafe-jafe fii ma nekk ci Europe dara dañ koy wax ndax maanaam man xam nga kii bi ñuy indiw ak seen i wax. Hmm. maanaam man bu njëkk dama daa gis li ñu ci daara maanaam nit sax su diwmee wala waajuram ba def dara maanaam yow sa bopp yow xale bi da am kersa. Hmm. léegi nag suñ demee maanaam ba léegi ñu njëkk a mën ci ñu ne jiite ñenn maanaam di wax loo xamante ni dañuy ko mu wóoroog lañ waxoon maanaam man man ci yàlla man dama am jafe-jafe. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. li doon sàkk nag maanaam maanaam ndax ndax maanaam warul ndax ak a jóge ci lislaam maanaam moom delluwaat ci njàngaleem lislaam ndeysaan. a ngi ci wa man yattaqi xayra l-islaami diinan. ndeysaan. kon nag maanaam dafa jëkk fekk si si si dafa gë dafa gën a jot na naka jëkk waaye Sénégal dafa gën a jot ba ci nekk tamit maanaam siis yi ñuy àtte. Mhm. dañu bàyyi xel dañu bàyyi xel foofu kulluhum aatiihi yawmal qiyaamati fardan nañ koy bàyyi xel. kulluhum aatiihi yawmal qiyaamati fardan wallaay ndeysaan. ak ëpp doole moo leen fa bàyyi te gis liberté. nit ko xañ nit yëg na maanaam dama la ëpp doole sàmmeel bi kii ku ko fa dem dañoo wax say mbir ci ci yoon ci bees yi barke Sëñ Tuubaa duñ ko dégg wallaay nañ war maa doomi aadama yi religieux nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel xam ne dund jii dund lay sax dund guy sax amul fenn نفس سابقة الموت إليها لكن جرمه loolu de wér na moom xaleha de wér na oustaz bi may wax ak yow nii barke Serigne Touba damaa am lu ma am lu ma métti ci réew mi bëri nga si maanaam si morom dañu organiser ay élection dañu laaj baati askan wi dañ bàyyi ku mën a dem comme na koo waxee woon lu waay tubaab man su ma koy déglu sax yenn saa yi <laughs> damay ree ndax ni nga koy waxee yaa seen bàcce si la maa ngi ko ci. laay ndeysaan. <laughs> waaye maanaam maanaam sama xol day jeex. Mhm. ndax maanaam lu waay yoo xamante ni lu la neex nga tibbee ko lu la neex nga doxale ko. waaw lu waay lu lu waay tubaab yaakaar naa dem fii sax ana ñu fi jiitu woon. dëgg la. ana ñu fi jiitu woon. maanaam nañ bàyyi suñu kër ci président Omar nam yore woon ak nguuram. Hmm. maanaam gis nga lislaam dafa matale man dama koy déglu dama koy déglu yenn saa yi ci seen seen bëccëru mbàkke xel koom di ko ci teew bi di ko ci tey man dama naan léegi ñun maanaam ñun ñii ñu jiite que lii ñu ngi koy bàyyi xel. Hmm. ndax jiite aw askan ñu jël seen alal jël seen doole jël seen lépp jox la war ngaa am ci ñoom yërmande. yow maanaam waratoon nelaw sax bu fekkee mat nga bu nga doon dëgg dëgg waratoon nelaw ndax xam ne tabaarkàlla tabaarkàlla dërëm boo xamante ni jël nga ko dugg boo ko mën a dugal ëllëg yomal xëyam dinañ la ko laaj rawatina nga jiite ay million maa ngi jéegi nag ci guddal gi am na solo jërëjëf waaye daal ñoom day sant bu baax di la ñaanal yàlla seen borom gën naa taxaw bu baax a a baax yàlla nañ yàlla nañ ko bokk xale yooyu ngay waxee xale xale yooyu ngay waxee foo ñu mënoon ndax man yooyu du ma ko utiliser waaye xam naa ne du ñàkk ne dinaa ci barkeelu jaare ko sa tur mooy xale yooyu ngay wax noonu incha allah. incha allah incha allah ci génne ci tawet ci li. sañ borom taxaw ci barke sëñ Babacar si ci barke sëñ kilifa diine ngi wootee ba bitim réew di ànd ak ñun ci jataay bi di Allo Oustaz jataay bi tàmbali 11h di jeex midi et demi. onze heure dix-neuf moo jotagum ci montre bi ma yor maa nekkoon ci tomb moom Cheikh Al Hadj Malick ginnaaw bi mu fi jógee ba am téeméeri at allo. salaam. wax nañ ko waaleykum salaam mu dog jëmbal keneen dana ñëw tabarakallah mu del siwaat téeméeri at yooyu téeméeri at yu am solo sëriñ bi yar jàngale fi orienté fi bàyyi fi ay jëf yoo xam ne amalun jabbaara allo bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu ah min njaga baal min yaa Cerno Bokar Cerno Bokar Bergamo Cerno ah, Bokar na nga def ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. ñu ngi naka waa Bergabon yëpp leen jox seen wàccuwaay. waa ñu ngi mi ngi tàng wante ñu ngi sant yàlla. jërëjëf. alhamdulilah. do do doon dugg di andi ay nuyoo. jërëjëf ci nuyoo yi. di di feesaliwaat collègue ak gi ak gi ak sa jëmm ju sell ji. ndeysaan ndeysaan. ñaan ah, ñaan yàlla tas tas si sa barke itam. ndeysaan njaboot lañ de. wallahi yàgg nañ la topp te duñ lay dégg temps yëpp. wallaay ndeysaan Thierno Bokar dëgg gëm naa ko de. Euh, ni ñuy bëggee ci yow wallaahi boo ko xamoon yàlla nga ko yéega. amin amin xam nañ ko waaye xam nañ ko yëg nañ ko jërëjëf Thierno. ah ah, ah alhamdulilah. di mhm. maa ngi topp tontu ba bataaxal bi. waaw waaw dañuy jàngal ba jàngal ñu nu ñuy waxee. ba ngay ba ñuy firi kooku andi woon. laaj bi kat ci ci ñaari ki ki bëggoon denc soxna. ba ñu ah. ne ko seetal nañ ko wante dañoo gis ni moom safara la ah, soxna si ndox la. waaw ñu firi leen ni ndox daan doon kañ duñ. wante <laughs> cin bu doxee seen diggante kat waaw lépp dox lépp neex. ndeysaan daanaka ñu xaw fa xëm sax. waaw ndax ni ñu koy firee moom yomb na oyof na te. day laal xol yi jërëjëf Thierno Bokar. alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah bu bëggoon bëggoon andi laajte laajte mooy comme li ma doon laaj xam naa ko eh, jotut dugg. waaw jotut bataaxal bi. li ma daloon ci fajar bi nga xam ni eh, dama dama sama nelawoo xaw ñoo ma xawoon moom ma jug vingt minutes après. waaw loolu foofu noonu xaw ma nax eh, fajar bi nga xam ni daanaka su sunna la bokk. Eh, suba si moom mooy fagaata bi. foofu damay julli eh, damay julli fajaat bi eh, suba si après ma andi fajaat bi wala fajaat bi comme que heure boobu kenn du fa naafila damay bàyyi ba ba ba jant bi génn mu soog a andi ñaari ràq fajar yi hmm. voilà. jërëjëf laaj bi am na solo. beneen waa beneen beneen laaj bi comme sama waa sa ki génn léegi rek sama mbokk boobu lu muy wax man moom. daanaka oustaz lu ma xaw a ma ne mer sax lu may wax moom mooy oustaz ñun waa sa jëmm ji dañ kiiwuñu ko bu baax Sénégal daanaka xaw ma nu mu ko mun waxee. Mhm. duñ ko consommer bu baax man des fois damay naa xaw ma oustaz lu tax du laaj réew bi ñu jox ko ko ndax nga nekk suñu jour xay nañ. pourquoi pas quoi pas. ah pourquoi pas. oui. waaw nga nga nga nga yar ñu si diine yar Sénégalais yi yëpp. si diine waaw waaw loolu moom sama bëgg-bëgg la. incha allah loolu moom da nga war a teg sa part da nga deux mille vingt quatre nag ñu ñu yóbbu la. nga nga taw jeex na bu leen ci géew bi lay wàcc incha allah. ah waaw waaw loolu moom dinañ ci kontaan bu baax a merci xam naa moom action yi moom tey jënd nañu vingt action di di donte que ni tabaski bi moo xaw a kii. dépense wante ah baax baax na di si. ba domp sot la bokk. si dix. waaw waaw bu fekkoon ku woote jënd bee action buñ paree buñ paree jotaay bi am mbir lay doon. ah alhamdulilah. jërëjëf alhamdulilah. waaw ñu ñi soññu tamit suñu suñu mbokk jullit yi kat. waaw ñëpp si yi nga xam ni dañ ne moom. woon tamit. waaw walaay ndeysaan. lu ñuy def ñu yokk si itam. jërëjëf jërëjëf. ndax aga ko <laughs> jërëjëf. incha allah jërëjëf Cerno Bokar ca Italie ca Bergamo jërëjëf laaj bi am na solo dugg bi am na solo eh, ki nga xam ne dafa xaw a biddanti mu yeewu gis ne jant bi génn na kon day fay suba neuf heures jàpp dix heures mu fay fajar bu fekkee bi mu yeewoo dañoo julli ba noppi waaye jant bi génn gut kon day julli fajar julli suba du fay ndax waxtu wi jeexagut waxtu suba muxtaar maa ngi jeex bu bët setee daruri bi mooy jeex bu jant bi génnee waaye bu bët seetee te jant bi génnagut maxtaar mi jeexagut waaw bu jant bi génnee nag maxtaar meeg daruri bi yépp jeex nag ku fi julee ci dangaa fay mbokk yi yàlla na jàmm yàlla na kiin ak seen njaboot njabootu maam Cheikh Al Hadj googu mu bàyyi fii daf ci amoon ku ñu wax sëñ Mansour si naan boroom daara ji waaw boroom daara ji mu yor daara yi jàngale bëgg mbooleem ñi nekk ci daara moo xam ay boromi xam-xam yu mag lañ moo xam ñu mel ni man lañ. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. ah eh, eh, yaa ustaz man man maa tàbbiwaat dafa am lu ma fàtte woon. waaw. bu fekkee bu fekkee technique yi ñoom ñoom kii moom mën nañu cee dimbale maanaam man daf ma yitteel lool te dama ko wëraat ba sonn gisuma ko mooy te anniversaire bi nga mujj a def te nga àndoon ko Sass Mbacké Sylla waaw maanaam te nga doon ko te doon ci wax say jaar-jaar ak yi demee noonu man dama ko wër ba sonn bu fekkee mën nañ ci dimbalewaat ñu jël ko dugal ko ci ci ci sa site YouTube bi ndeysaan ndax lépp ay ay njariñ la wax dëgg yàlla wëraat naa ko ba sonn yaakaar naa ci FM ko defoon waaye man dama ko wëru ba sonn bëgg koo teewluwaat mënuma koo teewluwaat bu fekkee ñoom may nañ la ko maanaam nga mën ko ci dugal. nga tàmbal ko baax daañ la ko wër incha allah. waaw ndax maanaam man wax dëgg yàlla yitteel na ma lool te maanaam jànge nañ ci muñ jànge nañ ci ne maanaam tamit nit kii maanaam lépp loo mën a nekk rek nay dëgg ci yow ndax maanaam yaakaar naa sama jëmm ca nga doon waxe ne li taxoon amoo xaw ma carte TF xaw maanaam dañoo ñëw soxna yi di joxe loxo maanaam nga lànkal sa loxo doo ko jox doo ko maanaam man daal yooyu wax dëgg yàlla daf may yitteel daal ndax dama sama dox daa des waaye yooyu daf may soññ daal daf may wax dëgg yàlla daal na ko gëstul ci yal na yal na ci archive yi insha allah yal waaw na yàlla suñ borom gën a taxaw rek ci barke jëf amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf daañ la ko waral incha allah ci archive yi bu soobee yàlla buñ ci jotee rek Pape Doudou moom yàlla may na ko ci loolu ci xarala yooyu dana la ko mën a dugalal ci YouTube bi wala ci scène bi incha allah subhanahu wa taala 11h27 minutes 88 628 11 00 77 499 12 12 Cheikh Xaaj ma bisimilah mbokk mi. ah salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Oustaz. waaw sëriñ man la sa taalibe Jamil. Jamil Guèye. Jamil Guèye Jamil ana ana ana Ami. Ami mi ngi fi moom dem na Italie nag barki démb mi ngi Italie fan yii. ana Oustaz. ah maa ñoo ànd fëy Oustaz ñoo ma ànd. war a war a waaw moo ngi yaayam ñoo ànd war a war dem ca ca Ibrahima teraanga loolu eh, rafet eh, na am na sax wallaay wallaay <laughs> jërëjëf. alhamdulilah ñu ngi lay ñu ngi lay ci ci ci ci ci weeru tabaski weeru weeru weeru maag yi ñu ngi si a baax jërëjëf yàlla na yàlla na mu ziar yàlla nañu ko fekk déwénti weesu ko. allahumma amiin allahumma amiin dina ndokkale nag dem ma bëggoon naa dugg ci ci ci eh, kii xamtu bi bëggoon naa dugg vraiment wax wax sama sama sama samay kii mais après finalement temps bi xawoon xat daal après ñu émission bi jeex. dëgg la dëgg la bu ma envoyé Oustaz Mbacke Sylla benn benn kii sax benn message sax. dëgg la dëgg la waaw doon ko rafetlu bu baax a baax a baax di leen ñaan ya di ñaan rek yàlla nañu ko yàgg di di di fet ay at yu bëree bëri bëri. amiin amiin amiin. waaw man ma ma ma man moom avant lu may wax sax mais avant kii la woon avant avant Sud FM donte Sud FM moom wax dëgg yàlla moom ku mel ne man dama naan yow yaay sunu yaay sunu Sadio Mané. man moom. ndeysaan dama naan Sadio Mané bu <laughs> doon football ak bu demoon équipe équipe Gambie de football sax. man de moom laay faral. ndeysaan waaw ah, yow nag moom macha allah depuis moo xam ne xam naa jiitu na sax ay quatre-vingt-quatorze yooyu. waaw laa la kuma laa doon doon topp. ndeysaan doon topp ba nga dem ba dem ci rajo Sud FM. ndeysaan wax dëgg yàlla. suñu gën wàllu diine yëpp macha allah si yow lañ ko jàngee. ndeysaan waaw ak yeneen ak yoo xam ne si si si yoo xam ne yaa ngi ñuy teg ci yoon vraiment. ci yoon siraatal mustaqim ndeysaan di ñaan yàlla taxawlu bu baax a baax yàgg a guddal sa fan lool may la wér gu yaram. amiin ñu bokk waaw may la tamit ñu ngi mébét lépp cinquante deux milliards yëpp yàlla ko yàlla jàppandil waaye. te te ñu avance ma ci balaa deux mille vingt deux biy jeex. voilà mi ngi noonu <laughs> yomb na yàlla yàlla mun yàlla ko yàlla def waaye. da dama amoon nag benn benn question benn question wala ñaar rek yu ma amoon na xam ne yu ma bëggoon yu ma nga leeral ma si. waaw dafa am euh, maanaam suñu mbokk jigéen yi surtout suñu mbokk jigéen yi loo xam dañ koy def man daal ma ko xaw a mel ni lu xaw dugg ci sirk. waaw ndax dañuy yor be bu ñu yoree seen seen saag yi. Mm-hmm. duñ bëgg mu teg ci suuf. waaw dañ naan saag boo ko tegee suuf da lay um. léegi nag saag yi dañ koy jël di ko teg comme comme comme bébé daal fu ñuy bu ñuy toog fu ñuy kaw lañ koy teg. wala si kaw lal wala ci chaise wala yu demee na mais daal nee na bu ñu ko tege suuf dañu um man leen est um est du yàlla mooy joxe wërsëg de lool nag moom naa ci laaj euh, sama sëriñ ba xam euh, lan ñu ci leeral. Mm-hmm. ñaareel ba waaw ñaareel ba mooy euh, xale yi comme fii France ni instant yi géej bi day guddi lool dañuy war a jàngi dañu war a jàngi ci suba gi dañuy teel a jàngi. Mm-hmm. donc léegi ma xam ndax mën nañoo julli timis rek daa ciy teg géej ndax timis bi daanaka dix heures day passé. Mm-hmm. est-ce que mën nañu julli timis rek ci géej daal di dem Mhm. su ko defee mu ñu bañ toog di xaar ba ay onze heures quarante cinq ak minuit daal. Mhm. Euh, waaw loolu loolu laa bëggoon daal sax nga leeral ma ci di la ziar wér wér di dégg lool ci déggoo bi ak di la ci télé bi macha allah. ndeysaan merci beaucoup gënul ma sax Mbacke Sylla ak ñoom Oustaz danañ ko dégg ñoom ñëpp ko dégg. kooku mooy Moustapha Jamil Guèye euh, ñu ngi koy nuyu baax a baax sunu turandoo laa koy laaj léegi mu ne ma nga ànd ak yaayam jëm Italie yàlla ñu àgg ci jàmm. fekk fu ñoom Ibrahima ci jàmm tabaarakallaahu ñu ngi bëgg lool ndax wax na dëgg bi nu xameek léegi mu ngi bëgg am ay at ndax bu dul 97 bu dul 94 di 93 boobu tàmbali gu ñoo dem ci rajo yeeg télévision yeeg yooyu boobu la ñu àndoon ba fi nu toog euh, masalam diina moom am dana ma ca woo ak yeneen yoo xam ne mu ne su ko wax ci kaw jigéen ñi ñu wax ne. waaw dañ leen ko doon naxe ci wàllu aada bu dee pas-pas nag day yàqu ab saak kenn du ko teg ci suuf parce que boo ko tegee ci suuf ndaw ku ndaay mën nañ koo jël loolu rek lay tekki lañu bëgg na daal foo toog bu la sab saak sori loolu doo nga lay tekki amaa def na nag da um ak def yëf déedéet déedéet wërsëg yi sunu borom defu ko ci jërëjëf waxtu timis ak gee seen diggante dafa am ay darajaat yu fa sunu waajur wa daan jàngale di wax ne diggante timis ak gee war naa mat arboo darajaat arboo darajaat daraja bu nekk vingt minutes la eh, loolu daan wax lu tuut tuut war na koo mat su ko defee ki nga xam ne dafa julli timis ba noppi bu toogee waxtu ak ñaar fukki minutes gee jot na wàññi ko ba mu wàññi ko nag léeg-léeg ñu mën caa wàññi fukki minutes mën caa wàññi fukki minute juróom waaye waxtu yi moom na ma sëkk bu tegee nag mooy la gën jërë ngeen jëf ci ànd beeg Ali Imran TV sëñ Moustapha ci itali xaw ci France euh, laaj bi am na solo kon loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk euh, tabaarakallah maa ngi woon ci téeméeri at yi maam Cheikh Al am ma ne mu bàyyi fi ay njaboot ay doom doom ya bàyyi fii doom ñu nekk ay sët ba ni xilaafa gi aksi ci xam-xam lool moo xam bisimilah allo boroom xam-xam yooyu ki xam lu bari ni mu ko bëggee ki xam lu tuuti noonu la ko bëgg ak kiñ koy jéeñ ku mel ñun nga xam ne ñuy jéeñ na am ngeen xam-xam bëgg googu nag moo taxoon sunu ñeenti daje yi <laughs> sunu ñeenti daje yi maag alxalifa sëñ suuf si daje bu ci nekk am njàng la benn ba ci xombal la amee am njàng mu bare ci nekk benn ba fii ci wakaam la amee am njàng mu bare ci nekk ñaar yi tiwaawoon bu tiwaawoon ba mujj bi nag <laughs> moo jur garaam mbubb bi <laughs> bu tiwaawoon ba mujj bi te mooy quatrième bi moo jur garaam mbubb bi <coughs> bi ñuy campagne 2012 Alaaji Malick Sall <coughs> dama bokkoon ci liste waa MRDS ñu bind ma ci liste bi cinquième position ak suñ mbàkk si limi keroog ñoo ànd ndax bi may campagne fu ma dem dem na fa waaw réew mi yépp wër naa ko daanaka Tamba dong laa di xanaa waaye ba ñu ñëwee ba Tiwaawan ak sa ci saal bi nuyoo ma nga ca biir néegam dégg sama nuyoo mu yebal sëriñ Habib ne ko neel sama ustaas boobu mu jàll si ma daal di xëm ma daal xëm mu ñëw jël sinu man Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñoom ñoom Imam bay ñan ak list bi daal tedd liste yi bi ñu ñëwee dugg si ci néeg bi mu tëdd ca lal ba mu ne ñokke toog daal ne ma honorable waaw mu ne ma honorable Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ne ko ah yow ndeke xam nga kii <laughs> mu ne ko laaj ko mu ne Oustaz Dame Ndiaye laaj ma ak yi ci tege waaye kero daal ba mu ñu waxee honorable lañu wax ne fokk nga falu dara ci réew mi lii la wax keroog ne fokk nga falu dara ci réew mi ndax nee naa la honorable ba pare. allo salaamaaleykum. salaam mbokk mi. yaa ngi maa ngi la koy delloo. man la Momadou Nabir Momadou Sow. Mamadou Sow fooy wootee. Kër Massar. Ah, Kër Massar. waaw ñun moom dañ lay dañ laa yàlla. foo dëkk ci Kër Massar. Kër Massar maa ngi dëkk euh, Kaas ba. xam nga osa bi xam nga ko. xam naa ko bu baax a baax kay. laa jëm si 16h dégg nga. 16h allah. maa la ko wax ah, de. bu ko yàlla dogalee daal fa laa jëm si. <laughs> incha allah ci osan bi noonu rek. Ah, ginnaaw osan bi rek. ginnaaw Auchan bi. waaw. incha allah rabi dinaa ko ñëw seize heures. maa ngi lay séentu di séentu gaa yu ko dégg yëpp. incha allah dinaa indaale gaa yi gaa yi wax yàlla ko. <laughs> waaw. waaw ñun moom kër gi ma yoroon moom ñëpp wax dëgg yàlla muy maire beeg waa kër allah ñëpp ñëpp dañ lay dañ bu baax a baax. waaye Mamadou da ngaa baax yow. waaw ñun dañuy jàng ñun moom dañuy dañuy gëstu di jàng ay ay nag waaye yàlla def na bëgg nañ de. te ñooñu a baax. noonu baax na rek ku ñee am mag da ngay jéem a jaari tànkam. YouTube ci YouTube beeg Ali Imran nag ñoo ngi suivre xam nañ ñoom ñëpp ñoom suñu laaj suñu ah, laaj. ñëpp daal ba ba ba croisement bu ñaan ñu xam nañ. xam nañ waaw ngi suivre bu baax a baax. abonné. connecté aimé partagé. ñu ngi commandé wax dëgg fa yàlla. jërëjëf Modou Sow. ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaay. amin may wër gi yaram yokk fan. amin sàkku ñaan bu baax baax. amin kontaan nañ trop oustaz di bëgg nag ngay ngay ngay ngay ngay ngay bàyyi la xel di waxaa la gars yi ñu gën a bàyyi ñu gën a bàyyi xel ci ak ak njibar yi incha allah incha allah bokkaale yi allah yéen yéen njibar bi fàtte ñu bare bare jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaa soxna kontaan naa trop Mamadou Sow Kër Massar lay wootee dugg bi am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax bokk mi salaamaaleykum. yoon na. aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah waaw. allo Sa Alioune Sall maa ngi Al Ousseynou Diallo. Al Ousseynou Diallo Géejawaay. maa ngi lay ziar baax oustaz di kontaan ci nga am fukki bëccëg ak ñett. amin waay amin amin amin amin nga fekkee ko. amin ak ñaanal auditeurs yëpp. incha allah. ñaanal TV ñëpp daal. incha <clears throat> maa ngi lay sàkku nag nga ñaanal benn rakk bokkal ndey ak baay yàlla ko yàlla yërëm waay. Amadou Diallo na ko ko ñaanal. yàlla ko yàlla yërëm ngi lay ñaan nga ñëwal ma ci ngëneelu taba uh, weer bi ñu nekk nii fukki fan yu njëkk yi. Mm, incha allah incha allah. waaw maa ngi kontaan ci yow di ñaanal yokkute daal ba nga yëg ko. incha allah. maa ngi ñaan auditeurs yëpp ni ma koy defee rek. fu ñu mënta nekk ci àdduna bi ñun ñoo bokk mbir. waaw a ko waaye wax nga dëgg Alioune a ko bokk de wax nga dëgg de. ñoo bokk Oustaz ñoo bokk Al TV. ndeysaan. ñu ngi ñaan daal yokkute. amin te lii tamit yokkute la lii tamit yokkute la. dëgg la de dëgg la de. waaw ndax chaque chaque nga jàkkaarloo ak Oustaz Alioune Sall. bu Al Imran TV kon du mun a ne. ndeysaan jërëjëf. yàlla ci yeneen daal topp. amiin al Ousseynou lépp loo ko yàlla defal. amiin al Ousseynou. bu fekkee ko ñun ñëpp. amiin. te yokkute daal suñu yokkute la ñun. amiin. jërëjëf oustaz alhamdulilah. alhamdulilah al Ousseynou Diallo Géeja waaye jamono yi bu ñuy nekk ci al oustaz ma ngay fekk Cheikh Dieng fële ca euh, Kër Ndiayloo euh, ca këram ca Saalam mu connecté télévision am ndax bañ dara wëcc ko ci euh, macha allah Cheikh Dieng. salaamun <laughs> Mamadou saw bokkaale ah jar nay wax lu bari Mamadou Sow Kër Masaar ndax bokkaale ngi mel ni ku ŋàbb kaasub ndox mu rëcc la ni nga ñàkkee ndox mi ñàkk kaas bi bokkaale nun lay def sa jëf lay jëf jëfi nit ki Ousseynou Diallo waa ji ŋàbb kaas def ci ndox kaas bi ci ko ñëw ci peron bi ci karo yi ñaar lay ñàkk ndox mi kaas bi te it mënut mënatut dab dabaatal ndox mee kaas bi moo tax inna allaha laa yaxfiru an yushraka bii ak la in ashrakta la yaxbatanna amaluk boo bokkaalee dangay ñàkk kaas ñàkk ndox loolu wax na yonent bi la in ashrakta la yaxbatanna amaluk kon bokkaale très grave al useynu fan yii nu nekk fan yii nu nekk ku yàlla baaxe ba nga ne ci mu baaxe la ba nga tabe ci mu baaxe la ba nga sawar ci jaamu yàlla li nga am kenn amu ko <clears throat> wal fajr wa layaalin ashr layaalin ashr mooy fukki guddi yi nee nañu démb mooy benn fan ajjuma tey di ñaar waaw am na ñu def nag alxames benn fan kon tey mooy seen ñett ñu war a taxaw arafa ajjuma bu ci ëllëg saa waa màkk tabaski bu ci ëllëg saa ñu bari ci senegal tabaski weeru fukki fan yooyu ci la tabaski nekk ci la dem Muna nekk ci la Arafa nekk waaw ci la jamratul aqaba nekk ci la tawaaful ifaada nekk sunu borom baaxe ci nit ñi ñu tabaski ci waaye woor ci liñ mën a woor su yow ma Arafa jotee nu woor ko ren nag mu mu taqoog nag ajjuma yàlla nañ ci àggati weesu ko mbokk yi 88 la 628 11 00 77 499 12 12. asalaamaaleykum. <laughs> waaleykum salaam. Oustaz. waaw. Sall. kooku. man la Ndumbe. Ndumbe Ndumbe fooy man la Ndumbe Italie. Ndumbe na def. maa ngi fi Sall naka waa kër gi. Ndumbe noo sant. Dieng laa sant. waaye Ndoumbé Dieng. <laughs> waaw Sall maa ngi lay ziar baax. mbaa foofu du yàq sa sant bi comme Sénégal. fii nii déedéet. Dieng laa sant ñoom kay nañ. xam nga fii dañ la dañ naan la de lañ lay wax fii. waaw ñoom liiraale nañ G bi wax nañ. Dieng waaye fii moom Dieng la ñuy wax Dieng. Dieng waaw fii de moom dañuy tur yi dañ koy xëcc moom. waaw kay daaw mbéy ak. ay bu dee faatu ñu ni faataw genre yooyu la ñuy wax. ah noonu noonu kat moo xaw a tane li ñuy wax fii. <laughs> bisimilah. waaw fii ñu ngi def. maa ngi ziar di rafetlu macha allah. jërëjëf. waaw damay dugg jéem dugg nag mais ligne bi mooy xat. dëgg la lu jot yomb. mais macha allah su ma wootee su ma wootewul yépp maa ngi topp moom. wallaay xam nañ ko ndumbe. waxtaan yi am na solo macha allah. mosoo ko yàq. waaw di la ñaanal gudd fan rek bu ànd ak wér ndax yow moom gudd fan rek ak wér lañ lay ñaanal. ndeysaan. ndax macha allah sag nga ci diine ji. ndeysaan waaw ñëpp la sopp. sopp naa leen ñëpp la sopp yàlla xam na ko yéen ñëpp laa sopp. waaw yàlla boole. sopp fii fii fii. <laughs> macha allah ñun tamit foofu dañ la def. <laughs> su ma ko waxaat ne ay Maodo rek ndeysaan mu xam ba du añ ndeysaan su ma kiyee rek su ma kenn kër ni ma kaay déglu sa ustaas yi ndeysaan nu ma ko bu baax a baax waaw ma ne ko suñu ustaas la ñun ñëpp nuyul ma ko bu baax macha allah maa ngi ziyaare waale waa daala Ali Imran bu Mbour waaw ñëpp a ngi lay fay di ziyaar sëñ Mor Seck sëñ Maxtaar Njoon wax nga dëgg wax nga dëgg ñëpp maa ngi leen di ziyaar macha allah wax nga dëgg wax nga dëgg waa di wax nag macha allah garamu bi rafet na bi lay sëñ Habib si jox. merci. <laughs> macha allah macha allah ñun daal bu ñu wootee daal du ñu xam sax lu ñuy wax ndax kontaan daal. jërëjëf jërëjëf. waa ndax cofeel bu ñu am ci yaw rek di gën a soññ. waat nag macha allah si action yi. waaw nu baax na de. waaw action yi ak kër gi. xam nga xam nga ku mel ni Oustaz Alioune Sall di kii kër boo xam ne boobu ba tey mënut a fexe ba mat loolu tamit doy na waar. Mhm. ak ah, xëy na sama sens ji nekkul. waa ndax eh, am na loo xam ne yow moom mënoo koo waxal sa bopp. ndeysaan ñoo la ko mën a waxal. merci Ndumbe. waaw wax wax dëgg yàlla daal na ci ñëpp jàpp ndax daal ndax kii kii bi dafa am solo daal. Eh, rajo bi dafa dafa am solo macha allah. tontu ba daaxal lépp am solo lépp li fi jaar dafa am solo. alhamdulilah.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 ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di loobu oyo ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee si butaan bi xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na lobu maam jaara buso kenn mënatu ko wute ëllëg si biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen gunge fépp te it ngeen yelloo li gën lobu maam jaara du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori asalaamaaleykum mbokki Sénégal aleykum mbokki Ndakaaru jël Jóob ak li ko wër jox leen ma seen i nopp ma ubbi seeni i bopp seen jaaxle jeex na tàkk te ngeen a bëggoon ay ginaar yu xéewale ginaar yu duuf ginaar yu baax ak ginaar yu set te sell te wóor adresse bi benn rek la Mbambilor tali bu xonq laajte leen poulailler Cheikh Ka wala ngeen woote ci 77 979 77 53 wala 76 780 32 07 suñu ndaw dana danañu leen jël si indi leen ci poulailler bi faj seen aajo poulet de pays pondeuse poulet de serre lépp lu ngeen ittewoo rek am na ñu ko am nañ ay sikket ay bëy ay xar ay kuy yu baax lool ana borom kër yi jaaxle kon fu ñu jëlee tabaski mu yomb te baax ñëw leen seet si ñu te mbaam bi lor tali bu xongo laajte leen pulaaya seex mbokk yi li gën a neex nag mooy am nañ oto bopp lépp lu ngeen jënd ci ñun ñu yóbbul leen ko ba fa ngeen jëm mbokk yi am nañ ay nen digg ci lool ci njëg yu xéewale lool mervede ñaay gànjar gi ci digg àll bi daal li ko tax a jug mooy faj seen aajo seex ka moo mën ci Sénégal ci njaayum ginaar ak nen xar ak bëy ku ko weddi nag demal seeti ko ca Mbambilor tali bu xonq wala nga woote ci 77 979 77 53 Cheikh Ka Le Dara Ali Imran, sous la directive de Oustaz Alioune organise sa 17e édition de Dara Vacances, suivie de la 10e édition de la colonie de vacances qui se tiendra cette année à Toubab Dialaw pour les enfants de à 12 ans, garçons et filles à partir du 15 juillet au 11 septembre 2021. Avec un encadrement de qualité composé de professionnels aguerris, la colonie se fixe comme objectif d'améliorer les compétences sociales, la confiance en soi, l'esprit communautaire, l'automotivation, la sensibilisation l'éducation culturelle, mais aussi et surtout améliorer le niveau des enfants pour l'éducation islamique. Nous croyons que ces compétences sont essentielles pour nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens du monde impliqués, chacun équipé d'outils et de valeurs pour apporter une contribution profonde et durable à la société. Pour plus d'infos, contactez le 77 438 49 94 77 586 6 77 ou le 77 531 09 9 28 الحمد لله الذي bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy seen bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yaay ci mbirum àdduna waaw Pape Duutu jërëjëf laay jërëjëf soxna Fat Diallo jërëjëf mboolem ñu jàpp ci liggéey bi jërë ngeen jëf onze heures ba teg cinquante trois minutes dañ doon ànd ak suñu partenaire yooyu di woo yeneen partenaire <clears throat> loolu maam jaare ñëw na daan yàlla yokk ko barke jigéen ñëpp fi ne moom lañuy ñuy wër soxna sa daa loo ba daa jeex mu nekk caaro yi di wër ci biti yi gaz Oustaz Alioune Sall bi <laughs> bitig bu mu dem ne leen amu leen gaz Oustaz Alioune Sall bi bu dee borom bitig bu mu mus mu ne ko daa jeex bu dee ku musut ne ko lii loolu waaw ñaareel ba ñooñu nga xam ne ñooy soos soos soosaristo xam naa baatu soos bi ci nekk neex na ci nogo yi waaw moom tam gis ngeen leen macha allah yàlla yàlla ci barke mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. oustaz bisimilah waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. di la ziar. fooy wootee. maa ngi wootee France. France. Mm. Mhm. man de say laa soxla woon. waaw soo kiyee da ngay mën a coupé si jox la ko dégg nga. boo coupé du jox la ko sinon su ma noppee boo wootee ci numéro bii nga jot leen ñu jox la ko. Mm. d'accord. incha allah soxna soosu jërëjëf mu ngi wootee ca France di laaj sunu numéro xam naa waa Russie daañu ko ko jox ci suuf sinon suñu noppee bu wootee ci numéro bi mu woote woon rek ku jot mu jox ko ko 88 628 11 00 77 499 12 12 ma tolloon ci Cheikh Ka moom tam nekk fële ca Mbambilor gis ngeen euh, tabarkalla am solo gi mu am solo waaye. Mor Mbaye macha allah Mor yàlla na la yàlla sàmm waay affaire li nga def neex na nit ñi lool te itam dana jëm kanam incha allah ndax il faut nu ubbi benn cabinet <coughs> bi ci mujj mooy yëgle boobu nga xam ne moom la Ali Imran di yëgle ca daara ja muy colonie bi soxna si doon laaj ndax daa ñëw France ma ne ko pourquoi pas soo moon lañ demoon daaw ren tubaab jalaaw mën naa am beneen yoon salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. sëñ Aliou. waaw Cheikh. Cheikh borom xóorlu ay nii. a <laughs> yaa ngi dégg waa Wadeen. waaw maa ngi leen yal na yàlla jàpp na yëpp. amin amin Cheikh Ibrahim. yow moom dool ci yow. ndeysaan. damaa génn waaj gën yàggal lool lool lool. lool amin amin ñu ñu bokk te bokk fi yàgg ñu ñëpp. bu mag mag a mag a mag a si laa <laughs> ngi lay dégg. yàlla na ko yàlla yàggal ma ne ko wér barka Ahmadu. amin ñu bokk amin jërëjëf Sall jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. kooku Ibrahima Wade la tudd ma nga ca Wadeen Gawa ci la dëkk ma nga ca Italie yàlla na yàlla def barke ak tawfiix bu ngeen di ñëw ñëw ci jàmm te indi xaalis maa ngi woon ci grand mbubb bi kere bi ñu Serigne Mansour recevoir wax ma ne on comme wax naa la honorable danga falu dara bu ñu jógee bay bëgg a dem ba mu ñaaral ñu mu joxoñ suñu abi bi nag ne ko. joxal ma ko mbubb daal cay teg ay baat nag léeg-léeg baat yi am na ci yooyu du du ma du ma wu di ko wax waaye daal mu ne ko joxal ma ko mbubb li fi dox dox fi di fi dox di fi dox ba corona dox fi ñaari at général général ren mu ñëw ni asalaamaaleykum rek jox suñu abib loxo rek mu ni ma fa ñukk ne ma toogal fii ma toogoon mu ne déet mu ne ah kay toogal fii ma toogoon daal di dugg ci biir génne garab bi jox ma ne ma lu mu lay jox ma ne ko la góor ga waxoon garab bi lu lay fàttali ma ne ko la góor ga waxoon mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. waaw Oustaz. dafa kenn waaye man la Fodé Kane Italie. Fodé Italie ngay woote waaw Italie lay wootee. ci ban dëkk nga nekk. maa ngi fi Varese. Varese. Varese ñun yàgg nañ la indi fii sax Italie Busto. wax nga dëgg de. am na benn année mooy daaw si Covid bi ñu waajaloon la mais Covid moo taxoon mu joo ñëw. Busto fa la ñoom Issa Diaye ndongo Lindiir. ah waaw ndongo naa ne mi ngi Sénégal sax de. Eh. ndeysaan. ndeysaan. Eh. ñoo ngi leen di ziare bu wér di leen di topp saa su ne. jërëjëf jërëjëf. waaw duñ leen vraiment dara duñu rëcc ci yéen. alhamdulilah. waaw dama doon laajte rek euh, ci kër pour tabaski bi. waaw. comme ñu ñu nekk fi Europe. te jënd rey ko yombul fii. Mhm. ndax euh, li ñuy yóbbante Sénégal di koy dimbale suñu mbokk yi nekk foofu. loolu mën na remplacer suñu tabaski ak euh, ñun aussi comme dañ ci yore famille dañuy jënd yàpp mhm. di koy di koy di koy feetoo ak suñu njaboot mhm. dama doon laaj ndax loolu mën na remplacer suñu rayum xar jërëjëf voilà loolu de moo doon laaj bi quoi jërëjëf Fodé maa ngi ñëw ci laaj bi léegi euh, incha waaw ñoo ngi nuyu Mbacke Sylla ak euh, imaam imaam Alioune Mbaye bu baax a baax. incha allah ñoom ñëpp dañ ko dégg bu soobee yàlla wala ñu ngi lay dégg jërëjëf jërëjëf ñoo ngi leen jaar bu wér waaye. jërëjëf Fodé Kane ci Bosto laaj bi am na solo midi jot na dese nañu kon vingt cinq minutes nekk Italie wala Europe yónnee Sénégal tabaski ñu jëndal la wala ñu jënd ko baax na kay tuyaaba la. moo xam yaa ko rendi moo xam nañ ko rendi feneen ndax ñiy dem màkk bu ñu àggee def xiiraan ticket rek lañu am ñi def tamattu ñoom tam ticket rek lañu am kon yow mi nekk foofu envoyé dara Sénégal ñu yónni cim xar baax na la ci tege mooy jënd yàpp waaw waaw ndax Ibnu Abbas am na at moo xam ne yàpp la tabaski Ibnu Abbas am na at moo xam ne yàpp la mbokk mi salaamaaleykum. salaam. bismillah. oustaz ñu ngi leen di ziar. noo ngi la koy delloo. maa ngi wootee Allemagne. Allemagne naka waa naka Allemagne. waaw ñu ngi fi ñu ngi fi ñu ngi fi jàmm ñu waaw yàlla na jàmm yàgg. waaw ah, di rafetlu émission bi xanaa amoon laaj bu ma doon laaj rek. bisimilah ci laaj bi. waaw dama amoon soxna ma bëggoon takk sama soxna conseiller moom pour ma takk xaritam. mu conseil la pour nga takk xaritam. waaw léegi ma doon laaj loolu loo ci xam. incha allah. incha allah waaw kon jërëjëf. jërëjëf euh, mbokk mi mi woote almaañ laaj na laaj ba am solo mooy am aawo bëgg a takk ñaareel sa aawo proposé la xaritam loolu day. bu bu bu ci seytaane bokkut sëy bu ko dàq amul fenn bëgguma lu dëkk ba mbokk mi nekk waaye mas naa ko nettali ci émission yi jigéen joo xam ne daf na jëkkër ji waaw doo takk ñaareel mun ne ko ñaareel mun ne ko waaw sama xarit bii may àndal guddeeg bëccëg ñu bokk lépp bokk ecole bokk lépp mun naa mun ne mooy mu ne ko li ma xam mooy boo ci duggoon parce que mbokk yi affaire bi mooy li li aawo bi du dund li yéene xaritam bi mu jàpp ne bu amee jëkkër ji mel ni jëkkëram ji dana dund dund mel ni dundam ji affaire bu doy waar nag ci am solo femme bi aaw bi def ne <clears throat> ni ma sama jëkkër ji yore dama bëggal kii jëkkër ju mel noonu te xaw ma ba xam danaa ko am ci góor ñim déet waaye am naa ci kenn <clears throat> ne ko kaañ dem nga ngoro diw mu ne ko diw man mun na ko diw man sa xarit mu ne ko waaw ñu dox ba sëy ba am ñoom ñaar niñ xaritoo woon ñu continuer noonu xarit gi asalaamaaleykum. waaleykum waaw mbokk mi fooy wootee. maa ngi wootee ba naka bokk Thiès. bokk bisimilah. waaw aha Ibrahima Diop ak Nguna. Ah. ana maire. maire mu ngi si jàmm bu baax a baax a baax baax. naka waa SN HLM. baax. waaw. yàlla mhm. eh, di ndokkale waat rek. jërëjëf. Eh, di la jaay aussi ci weeru thème bi di weeru tabaski. yàlla ñu fekk déwénti weesu ko. allahumma amin yaa rabbi. Mhm. fekkee ku ñu ñëpp. Eh, tey tomb bi nga dal tey moom daa am solo ba nga xam. waaw. Eh, dafa naa ne réew mi ñu ko bokkoon teewlu ko. Mhm. li ñuy faral di gis ci jamono yii ci diggante kilifa ji. Mhm. dañu ci bàyyi waa xel bu baax baax baax. dëgg la de dëgg la de. waaw ndax ndax wax dëgg yàlla mag ñi li ñu waroon def nañ ko. waaw. waaw dégg ak topp rek moo ñu dese. dëgg la. waaye fu mu ne nii moom des fois nga dégg ci kàddu yi ci réew mi. Hmm. jëmee ko ci kilifa yii nga xam ne tey benn rek nga xam ne exemple benn nga xam ne xëy na dundam jege na jéem ñetti fukki at yeggu ca. Hmm. waxtu ñu koy ñu koy anniversaire téeméeri atam. di ko hmm. fàttali ko. bu ko ñëpp doon def daal xam naa ne réew mi topp si seen i ndigal ak seen euh, li nga xam ne moom la ñu bàyyi woon. Mm-hmm. ah xam naa ne daal euh, am yu bëri yoo xam ne yenn gàllankoor ko ñu si réew mi yàlla dara gis nga sax. dëgg la dëgg la. waaw ah, mu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. yàlla na yàlla nangu la ziar. Mm, ndokkeelaat soxna Fatou Diallo si liggéey bi. ak mu àndal ñëpp nag mi ngi lay dégg mi ngi lay seetaan. voilà di ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaay bi. amiin ñu bokk. waaw ba Sénégal ak waa bitim réew ñëpp jëriñoo ko. amiin jërëjëf. am na am na li ma bëggoon a sama benn sama benn xarit boo xam ne mu ngi lay teewlu sa États-Unis. waaw. Eh, nee ci tabaski bi ñoom bu tabaski jotee. waaw. Eh, d'habitude daan nañu yéen Sénégal ñu jëndal leen foofu arafaan reyal leen foofu. waaw. waaye dafa am benn tabaski boo xam ne foofu la amee xaram. waaye reyu ko da ko yóbbu fi nga xam ne machine yi nga xam ne ñoom ñoo leen rey ak Sénégal defal ko lépp ñuy laajte ba xam loolu lan la ci eh, maanaam ci wàllu tabaski est-ce lu war la wala ndax dafa war di continuer rek jërëjëf. ñu koy ñu koy ñu koy reyal defal ko afaanam. jërëjëf foofu ndax moom foofu nga xam ne moom du rey du def dara da koy yóbbu amul fu mu ko reyee fu mu ko kiiyee ci machine yi la koy yóbbu daal ñu daggal ko defal ko lépp. Mhm. reyal ko waaw loolu daal la loolu laajte ba xam sax ban moo ci gën a xëy na gën a nangu wala islam am na solo. ok yàlla ñu ngi lay jaar bu baax nag. jërëjëf Cheikh Ibrahima Diop euh, frère madame Diop mële nekk Kër Massar ci tuddee barab ba muy ñëwee Alioune Sall <coughs> yal na yàlla yokk barke. waaw tabaski yónnee fii xaalis wér na tabaskee foofa wér na. joxe ca machine ya ñu rendel la wér na màkkatal mu karam buñ ca àggutul foofu lañ jëm ndax ñetti million xar ku bëgg xëy rendi leen wala ca machine jàppalewul léegi tey sa loxo tox wa taamu lazina utul kitaaba xillun lakum ba ko yàllay wax xamoon na ne tubaab mën naa rende nu nekk tubaab mën naa rende nu nekk gaa yi def marketing dañ koy naxe gaa yi naan leen lii mooy xalaal bii nekkul xalaal def ko mbiru marketing quoi jërë ngeen jëf 88 628 11 00 77 499 12 12 man ne bi ma ñëwee ci ziar journal bi xaj Habib duma ko nuyu rek mun ma toogal ci fër ma toogoon dem ci biir génn bi mu jox ma ne ma lu mu lay lu lay fàttali ma ne ko la góor ga la sëñ ba ne woon joxal ma ko mbubb waaw mu ne ma kon ndigal li li ci ndigal laa nekk mën ne ko ci lu wér mooy mbub mi sëñ ma sëñ Habib bu sëñ Mansour si borom daara ji eh, tabarkàlla. salaamaaleykum wa rahmatulah moo nu salaam. yaa imaam. aywa. ñu laa ziyaare waaye Moussa la. les euh, Angleterre. Moussa naka waa Angleterre. ñëpp a ngi sant alhamdulilah. yàlla na yàgg. amiin amiin tey moom ndax yi ngeen a am de. ah. waaye tey moom laaj bi métti na de. ah ndeysaan yo yoon wi. surtout ma Fisaalig de ne foogoon naa ne du dugga. ah kay da duggaat incha allah. Mm-hmm. waaye sant yàlla dugg nañ. sant yàlla rek. Uh, di la nuyu di la ziyaare di la ñaanalaat. maa ngi lay delloo ñaan. yàlla yàlla yokk a jàmm. ak ak xaalis bu bëri si barke alquranul karim amiin amiin. doon amoon benn question rek waat. waaw. si mbiri julli. Mm-hmm. waaw ñun fii julli gi tàkkusaan gi ak suba gi. Mm-hmm. ñoom tàkkusaan bi dañ daa wax ne waxtu bi mooy tàkkusaan comme ñu ne la cinq mooy wax mooy tàkkusaan mm-hmm. waaye duñ julli tàkkusaan ci jumaa gi yooyu huit heures mhm. ne timis baa ngi des benn une heure de temps rek balaa timis ci di julli timis tàkkusaan mhm. ci jumaa gi mhm. waaw suba bi tamit noonu la fajar gi fii mu ngi commencé deux heures waaye duñ julli fajar bee su naaj bi di waaj a taxaw parce que dañoo maa dem julli ji fajar dafa fekk daa si man borteel na. Mhm. waaye ñoom ñu ngi laa wan ne naaj baa ngay génn ñu ne la naaj baa ngay génn six heures six heures. Mhm. ñu julli six cinq heures et demi. Mhm. ay trente minutes rek moo des pour naaj bi génn. ma doon laajte loolu nag euh, naka la parce que su nekkee si kër gi mun ngaa teel a julli waaye bu dee si jumaa gi moom nga bëgg a jullee moom. Mhm. foog nga xaar gars te waxtu boobu la gars yi day jullee dañoo julli daal suñ silmalee daal ay twenty ay ñaar fukki minute rek a des naa naa jigéen. Mhm. donc ma bëggoon a laajte loolu nag naka ndax sukkandiku naa. incha allah incha allah. jaar na jërëjëf ah, Moussa Ba ci Angleterre dañ ñëw ci laaj bi waaye damaa nekkoon ci laaj mbokk mu woote woon Allemagne te jabar ji na ko takkal sama xarit ma ne dëkk sàngam la dem naa ba ca kër gi ñaari soxna ya e, fekk laan fi ak jëkkëram waaye ñoom ñaar li xarit bi doon wut ci jëkkër ji yéene ko xarit bi loolu loolaay dox ba démb léeg-léeg ñu aye demanoo marché <clears throat> léeg-léeg ñu aye toggandoo waa bu ñëbbi <clears throat> bu tolloo ci buntu kër gi ñoom ñaar ñépp a koy gàttandoo <clears throat> kii lonk ci loxo bii <laughs> kii lonk ci loxo bii kenn ku ne loxo ba nga lonk nag fa ngay fóon kii à droite kii à gauche ba ci biir kër gi kenn ka may ko ndox kii di bës tànk bii kii di bës tànk bii xam naa bu ko mbàkke fesi la fekkoon ne ko ewaaye eh ndaw <laughs> li muy tekki rek damaa bëgg wax ne loolu dagan na baax na loolu sa soxna si wax wóor na dagan na baax na salaamaaleykum <clears throat> allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw ustaz waaw ziar ñoo ngi ñoo ngi ziar bu baax di la di la ñaanal di sakk ci yow. fooy fooy wootee maa ngi wootee France. France. maa ngi wootee France. Mm-hmm. Oh, waaw. di doom ci sa benn wëllëre bu dëkk Pikine Tali bu mag. ndeysaan bu sant Dieng. ndeysaan. waaw. sa benn wëllëre bu sant Dieng bu dëkk Pikine bu mag. waaw. dama amoon ay question rek xam naa yu yu ñëwaat. bëggoon nga gën ñoo xóotal tuuti ci ñun ñi nekk côté Europe ci wàllu xalal da dégg naa nga wax ci léegi. <coughs> ndaxte am nañ ci ay jafe-jafe lool lool lool. Mm-hmm. ak euh, surtout dundin bi ni mu jafee léegi. te mm-hmm. cher. Mm-hmm. boo ñu ci mënoon a dikkal xootalaatal ñu ci tuuti rek. incha allah incha allah gën a xam fu ñuy teg suñu tànk gën a xam bu baax. léegi tey incha allah euh, ci tabaski gi tamit. bëgg nañ bëgg naa tamit am naa ci benn question ñëw na sax mais damaa bëgg mu gën a kii leer rek xam nga man moom sama bopp dafa xaw a nëx. Mhm. <laughs> ci wàllu tabaski bi. Mhm. maanaam ñun ñu nekk fii am nañu opportunité am am am xar. waaye mhm. xëy na buñ nee suba la tabaski lañ koy mën a am est-ce que buñ ko rendee ci buñ nee suba la gi dana daggan te danañ am tabaski wala déet. ndax duñu mën a am opportunité bi rendi ko ci bisu tabaski bi. jërëjëf waaw beneen bi ci des moo di ne euh, wàllu julli. julli mhm. fajar gi ak julli suba gi maanaam euh, heure bi fi mu toll fii dafa xaw a euh, kii dinañ ko julli fajar gi ñu ngi ko julli ay quatre heures quarante et suba gi six heures treize yooyu léegi bu fekkente ne bu fajar gi rëcc na la ba suba gi jot noo koy nooy fay faye bu fajar gi. mosoon hmm. nga cee indi tontu sax waaye comme li ma ak sama bopp dafa xaw a nax. Hmm. <laughs> day day leer naa ñu may doog may doog a gindiku. xanaa da ngay naan xanaa da naan guddi. te <laughs> yow moom ko am noppi dégg-dégg dëgg moo lay mën a dégg. ma ne xanaa <laughs> da ngay naan guddi. macha allah ah. dangay ngay faral di naan guddi. naan ndox guddi déedéet du may faral di dal nag. en tout cas ku faral di naan ndox guddi da ngay bëri lay fàtte. waaw ba jamono yi mat na ay ñetti at ak ñeenti at daal li may fàtte yéem na ma lool daal. Ah, yéem na ma lool ci ndaw wax dëgg yàlla tiital na ma sax laay wax. léemu léemu dañu incha allah. allah jërëjëf ñoo ngi ziar bu baax a baax a baax di denc yeneen question yi ba tontu bataaxal incha allah. incha allah jërëjëf mu ñëw ci kon laaju Moussa Ba fële ci Angleterre waxtu julli ci euh, timis. ñu xaar tuuti ba heure sàngum jot wala waxtu gee ki takkusaan wala waxtu gee ci suba waxtu daal dafa am moxtaar ak daruri yi jant bi li fee génn gut foo julli ci waxtu wi la jant bi li fee foo julli ci waxtu wi la bu dee takkusaan jant bi li soo soogut foo julli ci waxtu wala léegi nag boroom xam-xam yi ci jumaa yi ak jàkk ya ñooy def léeg-léeg ñu ne nun yóbbu waxtu yu barab sàngam bu ëllëgee ñu yokk ko def ko barab sàngam bu ëllëgee ñu yokk ko def ko barab sàngam loolu rek moom la waaye yooyu ngeen wax noonu foofu jullee wér na incha allah <coughs> soxna si doon woote France alxuraan daf leen a noppaloon yéen ñi nekk bitim réew noppal jullit yëpp daf ne ca suuratu Maayda wa taamu lazina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum su boobaa boo demee ci marché yi market yi ak supermarché yooyu yàpp woo fa fekk muy nag mbaa muy xar mbaa muy bëy mbaa muy gëléem dagan na yàpp mbaam xoox moo fa dëgganut ak yu mel ni moom léegi nag li ñuy bind ci kees gi ne xalaal loolu marketing la léegi bu ñu bii mooy xalaal yow dangay ngay wër di ko wër pour am ko ca ñoom nga koy jënde waaye ginnaaw alxuraan ne wa taamul seen utul kitaaba xilul lakum booba lépp a xalaal booba lépp a mu jeex tàkk kon foo jotati rek marché bi nga njëkk a jot boo fa gisee yàpp xar jëndal ku ko rendi tubaab baa ko rendi nu mu ko rendee xam waaw lu tax jullit bu rendi boo xut bisimilah duñ ko lekk te tubaab boo xut bisimilah ñu koy lekk ñu nga xam ni jullit lañ bu ñu waxut bisimilah léeg-léeg la ci ëpp ni naan bisimi daqaar gi walla bisimi guy gi walla bisimi euh, dex gi dañ ciy tudd weneen tur bu dee tubaab bi nag bu tudd yàlla it du tudd ab xiram waaw loolu ay sew-sew bi waxtu rendi ah kenn du rendi te julleegoo nag man zabaxa qablal waxti ku rendi te julleeguñu yàpp la am kon nag ñu ne su la tabaski nga rendi tey du mën a wér yeneen pexe mooy am rek mu mën a wér julli ja ba noppi ci ëllëg sa nga rendi sax moo gën a jàppandi rendi ba li la njox ndax ayaamu tasire kulluha zabaxa onzième jour douzième ba treizième ñett fan yëpp fani tabaski la waxtu julli li nga ci wax loolu moo ci am eh, su fekkee dangaa yeewu fekk jënt bi génn ñaari ñaari bor nga am boru fajar ak borub suba borub suba bi boru farata la boru fajar bi boru sunna la wala nga ne du boru du boru farata su boobaa kon boo yeewoo jant bi génn fayal boru farata ji xaar ba mu gën naaj nga door a fay boru bi dul farat muy muy ñaar ay fajar nu nga koy defee incha allah 88 628 11 00 77 499 12 12 léegi tey ñu jeexal am na ko ne ci yoon wi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. Oustaz Sall. Euh, maa ngi tudd Abdoulaye Guèye. Pape Laye Guèye. Abdoulaye Guèye waaw. Abdoulaye fooy wootee. Euh, France. naka waa France. waa France ñu ngi fii ñu ngi am jàmm bu baax. pare ngeen ci législative yi. waa jóge nañ ci législative yi. ah yéen amu leen morom yéen wuute ngeen ak nun ah waaw loolu de moom dëgg la moom. man dégguma coowul list foofu. ah coow list amu fi coow la euh, ni ñu koy waxee <laughs> euh, kan mooy jiitoo kan mooy <laughs> yooyu moom amu fi. waaw tubaarkàlla waaw man dama amoon ñaari laaj rek yu ma doon laaj. ñaari laaj waaw. waaw benn bi dama bëggoon laaj ndax euh, nit euh, mës mën naa euh, umra ji ba pare soog a aj. d'accord. waaw. loolooy benn bi beneen bi alxuraan ci lu bokk ay alxuraan la suratul insa. surat soixante seize waaw ay huit ak neuf. Mhm. waaw. incha waaw yooyu moo nekkoon laaj yi. jërëjëf Abdoulaye ñu ngi lay nuyu baax a baax di nuyu waa France yëpp macha allah ñoom Doro ñoom Ibrahima ak ñoom Roger ak gaa yu baax yëpp ndax mënees naa jiital umra door a aj waaw mënees na ko nit mën naa dem Makka umra ñibbi si beneen mu dem aji boo seetloo sax nit ñi dem nii di aj Makka ki def xiiraan day umra door a aj day boole aj ak umra kon ki def tamato day umra door a aj. ki def tamattu day umra summi ay armalam sol yére bu dem mun naa jotee mu mu armalaat kon li ma bëgg a wax rek mooy dagan na nit umra ba noppi door a aj suratul insaan hal ata ala al insani xiinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura sunu borom nee na nun lay waxal sunu borom nee na nun lay waxal ku dellu ginnaaw am na jamono yoo xam ne boo seetee liste bi nit ñi nekk nekkoo ca ku dellu ginnaaw bu xoolee liste li fi nekkoon ci àdduna moom turam nekku fa man mii 1920 fekkuma fi 22 fekkuma fi 1930 fekkuma fi 40 fekkuma fi 50 fekkuma fi léegi ngeen xam ne kon bi ma fi ñëwee yàggut waaw te l'an deux mille deux cent duma ma fi fekk yàlla mu yàlla yërëm naa yem foofu balaa maam xewe naan ma génn ci tomb boobu ndax su ma misaalee loolu rek ndeysaan du añ yàlla <laughs> na ko yàlla yërëm kon aaya huit ak neuf ci suratul insaan sunu borom daa wax ne dafa am jaamam yoo xam ne boo ëllëgee bëti ndox ya ñoom ñoo koy ko commandé na fajjirunaha jiiraa nga ne ah ñii lu leen ko may ñii lan moo leen may ñii dem ba yomal xiyam buñ soxlaa ndox rek ubbi robinet bi buñ paree tëj wala sax ñu dëkk ndax àdduna léegi dem nañ foo xam ne fii robinet doo tëj da ngay dékk rek mu xelal la mun li leen ko may Abdallah Gueye moo yóofoon na bi nasri luñ mas a wax def ko waaw loolu ko loolu bokk ci mooy njëkk leen ko may mooy luñ mas a wax def ko luñ narut duñ ko wax sëñ Cheikh Mbacke ko ko waxoon loolu lay benn ragal yow mel xiyaam liñ ci dégg ci ñuy nettali ñu ne kon ñoom buñ amateew ñam luñ ko bëgg-bëgg dañ ko mën a jox miskin moo tax loolu ci seen mbir la bokk dañu joxe aw ñam miskin lañ koy jox mbaab jirim mbaab prisonnier yii moo tax ñu am loolu buñ joxee nag ne innama nut'imukum liwajhi llah yàllaa tax ñu koy joxe bëgguñu suñ tur feeñ soxlawuñu rosi déedéet soxlawuñu facture day sànn innama nut'imukum liwajhi llah waaw léegi léeg nit jox la lu baax nga naan ko yàlla yàlla fay moon la ginnaaw Sëriñ Cheikh Mbàkke euh, xalifatu Daarul Xuddus bii tey Sëriñ du Xaar daf maa mës indil xar moo xam ne koñ ba yëpp nga koy seetaan booba léegi nag nun la koy defee 97 ba mu njëkkee tafsir ci rajo Dunia ba fii nu toog waaye keroog mu koy defam am nangami at mosunoo gisante benn bis mu koy indi rek ma ko mu ñëw ñu nuyoo ma tàmbalee wax mu ne ma noonu kat dañoo maam ñuy wax Serigne Touba mu ne waaw mu ne ma ne mas naa koo gis ne ko amu ne ma kon gise gi daanaka amuñu solo bu ma la gisee bu ma la gisut ma ne ko itu mun a taama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira innama nutimukum li wajhillah mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot ñu ngi jaajëfal mboolem koo xam ne ki yaa ngi topp Alou Oustaz ginnaaw bi ñu jëfal jaajëfalee suñu technicien eh, suñu caméraman laay suñu technicien le grand technicien Pape Doudou ak euh, suñu mbokk yi nga xam ne jot nañoo ànd ak ñun jataay bi Abdoulaye Guèye mii woote ci France ci la bokk mbokk mi Moussa Ba ci Angleterre ca la bokk Ibrahima Diop nekk fii ci Thiès ca la bokk Fodé Kane nekk ci itali ca Boston ca la bokk Ibrahima Wade Wade Gaawaj borom xóorlu ay nii ca la bokk <laughs> Ndumbe Jang ca Italie ca la bokk Al Ousseynou jàll ci waaye ca la bokk Mamadou Sow ci Kër Massar ca la bokk Jamil Gueye fële ca France ca la bokk Thierno Bokar woote ci itali ca la bokk euh, Mamadou Lamine waaye ñu fële ca Vigo ca la bokk waaye Boubacar jàll ci France ca la bokk jaajëfal suñu sponsor yi nag lob maam jaara ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal barket te woo ñeneen Sosa resto ci ñoom la bokk Cheikh Ka ca Mbambilor ci la bokk waaye daara Ali Imran bu colonie ca la ñu bokk ngeen xoolee seen montor midi jot na ba teg ñaar fukki simili ak juróom te eh, dem ba fanweeri minute la ca war a tege mën na ca mën a ñàkk tege te yëg laa ngi toog di xaar lu jub ci wax ji sunu borom la lu jub ci tontu yi sunu borom la waaw ñu ngi jaajëfal baax a baax sunu sunu sëriñ bi nga xam ne ci ndigalu waajuram la ñu joxe garaam bu bii ya ci tege nag euh, euh, place yu ma pour wax ko ndax mu ngi noonu daal yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني الحمد لله الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني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 dañuy faral di saytu suñu bërëbu liggéeyukaay ci lépp lu war a mën a indi lakk ngir artu bépp jeya waaye suñuy mbëbët yamul foofu lobbu maam jaara yamul ci gaz ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu ooyo ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee si butaan bi xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na lobbu maam jaara Bousso kenn mënatu ko wute ëllëg si biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen gunge fépp te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xool it fu gën a sori Le Dara Ali Imran, sous la directive de Oustaz Alioune Sall, organise sa 17e édition de Dara Vacances, suivie de la deuxième édition de la colonie de vacances qui se tiendra cette année à Toubab Dialaw pour les enfants de à 12 ans, garçons et filles à partir du 15 juillet au septembre Avec un encadrement de qualité composé de professionnels aguerris, la colonie se fixe comme objectif d'améliorer les compétences sociales, la confiance en soi, l'esprit communautaire, l'automotivation, la sensibilisation l'éducation culturelle, mais aussi et surtout améliorer le niveau des enfants pour l'éducation islamique. Nous croyons que ces compétences sont essentielles pour nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens du monde impliqués, chacun équipé d'outils et de valeurs pour apporter une contribution profonde et durable à la société. Pour plus d'infos, contactez le 77 438 49 94 77 586 6 77 ou le 77 531 09 9 28. yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna الحمد لله